docteur ah. Fatma Guenoune ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi maa ngi lay fay di remercier auditeurs wu mi FM. Mhm. Euh, ci bésu lancement wu octobre rose bi di waxtaan ak askan bi. ngay présidente ligue sénégalaise de lutte contre le cancer LISCA doon tamit spécialiste pathologie yëpp yi jëm ci cervico-vaginal tey campagne bi comme ni nga ko waxee door na ci mim réew ñu bëggoon a xam fan ngeen fas yéene egg atum ren 2021. waaw ren moom ñu ngi euh, bi am na mais. naam ne dina dinañu def parce que du duñu bàyyi jigéen ñi wéet te ñu am ku leen euh, saytu. Mhm. donc euh, ñun LISCA euh, du premier au trente et képp ku bëgg ñu seet la. ci sa ween da ngay oote ci ñaari numéro téléphone mhm. soo ootee ci ñaari numéro téléphone yi ñu am pour nga jël rendez nga ñëw consulter parce que dañuy jël fanweer suba fanweer ci ngoon si ñu seetla la du lundi au samedi. Mhm. ba pare suñu euh, lool la dañu bëgg euh, joxe ñaari junni bon mammographie pour jigéen ñi nga xam ne am ñu ñeen fukki at ak lu ko ëpp. Mhm. donc loolu objectif la ba pare ñu ànd ak sañu partenaire di Piwood euh, dem doxantu ci biir Sénégal xuus ci biir te ñu ngi commencé Podor. suñu jugee Podor dem Dagana jugee Dagana dem Saint-Louis jugee saint dem Louga jugee Louga dem Diourbel dem xombol ak eh, terminer Rufisque. kon mën nañoo jàpp ne loolu mooy lu bees ci édition ren bi. waaw lool lu bees la te niñ koy defee sax mooy ne dañu ànd ak suñu partenaire bi jënd matériel. Mhm. suñu demee dañ koy bàyyi pour suñu fëddoo ñoom district bi ñu continuer di saytu jigéen ñi. Mhm. tey jii Sénégal yan xeetu cancer lañuy gën euh, di gis ci mim réew. Euh, xam nga soo jëlee cancer yépp. Mm-hmm. boole góor ak jigéen. Mm-hmm. cancer buntu bu ci njurukaay. Mm-hmm. moo raw gàddu bi. cancer ween topp ci. cancer euh, foie topp ci après gis nga cancer góor ñi sax. Euh, te bokkul ci cancer yi jëkk ci euh, soo jëlee cancer yépp mm-hmm. mais canceru prostate nag mooy premier cancer ci góor ñi mm-hmm. mais euh, fii Sénégal canceru buntu buntu njurukaay canceru ween canceru foie ak cancer bi nga xam ne ne mooy li nga ci butit ak cinquième cancer mooy canceru estomac kon jigéen ñi ci ëpp loraan maanaam cancer bi jigéen ñi la gën a lor Euh, cancer yi jigéen ñi la gën a lor euh, te soo gisee cancer ci ñiy loru ci cancer yi euh, jigéen ñi la te dina dem ba nga xam ne ne dina ëpp junni jigéen juróomi junni jigéen ñuy faatu mhm. ci cancer yi nga xam ne ne moom moo leen songo mhm. kon daal euh, ci xayma at mu nekk euh, Sénégal ñaat nit ñoo ci faatu euh, faat gi faatu gi nga xam ne feebar bi moo ko waral. dinañu jàpp juróom-ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom juróom-ñeent fukk nit yuy faatu ci cancer bien am nañu. onze plus de onze mille nouveaux de cancer. donc biñ paatu euh, moo ëpp ñi nga xam ne ne ñooy dund ci cancer bi. te jigéen ñee ci gën a am loraange. waa te jigéen ñee ci gën a am loraange. donc butitu njurukaay bi moom moo gën a tamit faat jigéen ñi ci Sénégal. butitu njurukaay bi euh, moo gën a faat jigéen ñi te dinañu am environ mille euh, décès par an Euh, topp ci cancer u euh, euh, foie bi parce que cancer foie bi dinañu am mille cinquante neuf décès mais cancer u ween dinañu am neuf cent cinquante et un décès par an mm-hmm. docteur ngeen mm-hmm. yàgg a teg ay jéego ngir xeex ak it am ay li nga xam ne ci seen xeex mi mën ngeen ko jot tey jii bu ngeen doon xayma fan ngeen jóge ak fan ngeen toll ci wàllum ak yi ñu ngi sant yàlla Mhm. parce que bu ñu tàmbalee deux mille dix ba léegi sañu campagne octobre di waxtaan ak askan bi euh, fook naa ne euh, agsi nañu ci fi nga xam ne ne jigéen ñi nangu nañu saytu seen bopp. Mhm. xam nga loolu avancé la bu dëkk ba soo daan wax waxu cancer ñëpp dina la na la mhm. wala di fëgg sa ay nopp wala di laal bant. léegi fu ñu wootee ñëw leen saytu jigéen ñi di ñëw. donc loolu sant yàlla la. Ah, te waxt waxtaan nañu ak euh, gouvernement yi mhm. ba ñi nga xam ne ne am nañu ay acquis yi nga xam ne ne am nañ ko ci wàllum xeex cancer mhm. parce que fi nga xam ne ne euh, chimiothérapie boobu nga xam ne ne mooy pàcc bi jëkk ci faj bi mhm. euh, dem ba mu yomb ba nga xam ne ne c'est gratuit te daanu woon gratuit ku amul woon deux millions doo faju ci sa cancer ñu dem ba mu gratuit kon ay jéego la te loolu sant yàlla la. Mm-hmm. Euh, ñu dem ba am euh, tamit ci wàllu appareil yu radiothérapie bi nga xam ne ne mooy rey lawtaanu euh, feebar bi. Mm-hmm. am nañ ci ñeent léegi Sénégal. Mm-hmm. te foog naa ne ci pays de l'Afrique de l'Ouest ñun am nañ ci vraiment ndam. parce que à part pays maghrébin yi. ñun daal foog naa ne Sénégal léegi macha allah. ndax spécialiste yi doy nañu ci mim réew. Euh, loolu moom doyagul. Hmm. Euh, doyagul maa ngi ñaan nag bépp autorité ku ma dégg. ah nga may xale yi nga xam ne ne ñooy jàng docteur. Hmm. Ah, ay bourse parce que étude médicale dafa dafa dafa métti. parce que daa toog huit ans mhm. di jàng mhm. euh, soo jëlee sa bac vingt et un ans balaa ngay pare vingt neuf ans mhm. ah, te soo paree soo amulee bourse doo mun a dem defi sa spécialisation te mag nag du tàllal loxo te suñu bëggee que dëkk bi naat nga xam ne ne euh, maladie képp ku am feebar fii ngay fajo fokk nga offrir ay bourses. Mhm. donc man maa ngi ñaan autorité yi ministre de l'enseignement supérieur ministre de la santé président de la république pour ñu yokk ay spécialistes. Mhm. te foog naa ne léegi euh, jàng bi euh, gën na ubbeeku donc Sénégal mun nañu am nañu mun nañu toog fii def toutes les spécialisations. chirurgie bi mun nga ko fi def euh, euh, mun nga def euh, naka la tudd radiothérapie donc nañu may xale yi ñu jàng ndax suñu ubbee hôpitaux ci région yi mhm. ay unité de traitement pour ñu mun a affecter jeunes médecins yooyu ñu dem ci àll bi pour faj waa sénégalais yi. Mhm, wax nga ko euh, atum ren am na ay diwaan yi nga xam ne di ngeen gën a ubbeeku euh, ci wàllum sensibilisation ak dépistage mais ndax mën nañoo am yaakaar ne Sénégal yëpp euh, benn bés ngeen def couverture bi yëpp wala li ni bokk na déjà ci politique yu état teg. loolu le foog naa ne Niska hmm. ñu ngi ci vingt huit villes du Sénégal fu ñu dem. Hmm. te fépp fi ñu dem. joxe nañ fa matériel formé nañu sage-femme d'État yi nga xam ne ne ñoom ñooy jëkk euh, ñooy euh, ñi kër docteur yi gën a jegeñ jigéen yi mhm. ñu formé leen jox leen ay matuwaay bu nga xam ne ne dinañu mun a saytu jigéen yi mhm. donc objectif u ñu euh, ngi ci octobre rose bu weeru Euh, canceru ween la mm-hmm. mais ñun euh, LISCA dañ ci boole canceru buntu ci njurukaay donc am na ay partenaires yi nga xam ne waxtaan ak na ñook ñoom mm-hmm. ba am na benn appareil bi nga xam ne ne lu ñuy wooyee ablation jëndal nañ ko état wu Sénégal te ci district sanitaire bu nekk dina fa am donc objectif bi mooy former euh, sage-femme d'État yi ci naka la ñuy fajee mm-hmm. lésions précancéreuses yooyu ne te yan jafe-jafe euh, yu gën a tar ngeen di jànkonteel ci terrain bi ah, yéen ñi LISCA euh, ñun LISCA jafe-jafe bi ñu gën a jànkonteel mooy euh, wàllu xaalis mm-hmm. bien que état du Sénégal jox nañu subvention depuis daaw am nañu subvention vingt million chaque année pour fay loyer bi fay Euh, personnel bi ak doxalinu LISCA. Mm-hmm. Euh, mais euh, loolu la du jàpp jàppale malade yi. Mm-hmm. parce que foog ñuy def téléthon pour ñaan askan bi ñu jàppale LISCA ñu jàppale malade yi bien que faj bi am na yu ci yomb mais naam ba léegi. jafeñ na ci Sénégalais yi parce que foog naa ne ku am problème mu fi ngay dënd fi ngay dëkk ak fi ngay lekk pour soo fajoo dana metti mhm. donc euh, euh, yooyu le problème la te képp ku ñu wax sa tàllal la sa bilan nga laajte liska ngay ñëw daw si pour ñaan dimbal te ñun suñu tàmbalee du ñu bàyyi moo tax nag may ñaan képp ku am loo jàppale ngay ñëw jàppale liska pour askan bi te te li bëgg wax nag ñu euh, xool mhm. ñun suñu lépp leer na parce que ku ñëw bëgg a xam fii LISCA dugal xaalis bi euh, am nañu suñu auditeurs yi te am nañu benn cabinet buy wone li lépp fu suñu xaalis dugg mhm. ci jàppale googule euh, déggoon nañ ci loxo euh, ki fi doonoon première dame muy Viviane Wade ndax collaboration boobu ba tey moo ngi wéy malheureusement xam nga li ñuy wax rek soo demee ba nekkatuloo première dame Euh, te nekkatul sax fii kon xam nga collaboration boobu amatul mais moom tamit moo taxoon euh, ñu gën a euh, ñu door taxaw mm-hmm. mais loolu mi ñu may benn camion bi nga xam ne ne moom la ñuy wër Sénégal mm-hmm. mais actuel président de la République Euh, muy son excellence monsieur Macky Sall. Mm-hmm. bokk na ci ki nga xam ne ne moo gën a taxawal xeex cancer ci Sénégal. Mm parce que bi mu accès ci Sénégal ba léegi depuis 2014 am na ay jéeg yu bari yu mu def. Mm donc loolu ñu ko ci sant parce que am nañu benn appareil bu bon la ñu amoon bu cobaltothérapie. Mm -hmm. léegi am nañu ñeenti appareil yu cobaltothérapie. Euh, euh, euh, excusez-moi accélérateur de particules. Mhm. am na hôpital bu bees bu ñu tabax. Euh, Touba te foofu le am na radiothérapie service de radiothérapie mhm. donc am na yu bari ñu ngi koy def euh, agsi nañ ko te ba léegi def nañu plaidoyer mhm. ba am na centre d'oncologie bu Diamniadio mhm. bu ñu war a poser première pierre bi loolu tamit ay avancé la ci lutte contre le cancer parce que dégg na suñu plaidoyer wax nga ko sànq am na uh, gunge gi nga xam ne dingeen ko gunge malade yi Sénégal uh, yàgg nañ fee gis yenn euh, xeetu feebar yi bu ko nit amee euh, day bëri luñ koy euh, boddi ndax li ni mel am na tamit ay jumtuwaay yi ngeen teg ngir gunge ñooñu le nga xam ne dañuy dund loolu. waaw ñun LISCA dafa am li ñuy wax waxtaan ak malade yi. Hmm. waxtaan dalal malade yi ci seen wàllu xel wàllu jaaxle hmm. li ñuy wax ne groupe de parole euh, nga xam ne ne euh, ci prise en charge psychologique la hmm. ñun euh, talaata bu mujj ci chaque weer hmm. dañuy dajale malade yi nga xam ne ne dañu am cancer dajale malade yi nga xam ne ne amoon nañu cancer boo wér dajale seen mbokk yi parce que pour ñu bañ a beddi malade yi loolu dafa am solo Euh, ñu wax ak ñoom dalal ñoom ñëpp euh, góor ak jigéen euh, loolu dañ koy def mm-hmm. parce que fii am nañu imam am nañu psychologue beneen psychiatre am nañu ay assistante sociale te ñooñu ñëpp ay bénévole la dañ dañ koy def te duñuy demander dërëm dañuy accompagner pour ñu dalal malade yi mm-hmm. ak seeni famille d'accord docteur Fatma Guenoune ñu lay jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup